Bonejaka seen tali talibi nekk ci an Marinas tey féetewoo ci corniche an Bel-Air bi danaka da ngay japp ni lepp gongo monté pour ñu lay fi yeewoo ak ñu rombu ti tiitaange kep lañuy andal say suné lu ko waral du lenn lu dul melokanu canal bi nga xamni danaka daanaka dara téyeetu ko muy mbir mu tey xel waaw yàgg naa di jaar fii waaye affaire bi xam nga wóorul quoi ak oto ak camion yi surtout ma camion jën yi man noo chargé poids jaar fi nii mu rës wala déet wala wóorul daal. waaw lii moom yàgg naa ko nemmeeku mais boobu ba léegi xam nga saa su ma fi rombee xam nga sama xel sax du daal ndax fii xam nga yàgg na mel ni te li amul sécurité quoi. waaw yàgg na fi kay man depuis ma fi daree jaar ak léegi yàgg na fi waaye defuñu ci dara te wóorut quoi parce que camion yi dañ fiy jaar ak xale yi sax dañ fi jaar yenn saay xale yi ndaw yi daw di jaar nii. parce que xam nga lii wóorul quoi ak oto yeeg yooyu quoi. sëriñ Saliw mi nak danaka ab man la xawna fi gej tuuti waye bi ma agsee ba war a jéggi xelam tey itam ci mbir mi gëj naa fi jaar lool nag waaye ni ma fi jaar nii même bi may traversé pont bi sama xel dalu ci dal donte sax am na ay poto yuñ fi samp ngir mën a fësal pax mi sëriñ Saliou jàpp na ni liile doyul ci matuwaay waaw gis naa ko bu baax ndax bu doonu toon pano biñ ci samp euh, bu ci oto dalee rek mën na wàcc ci biir canal bi té lolu bu boba mom benen affaire la ci bu féké na ndox bi ci traverser amna doolé ci bir geej gi la la jëmé li de nak nga xamni ni na fi lool tey boobaak léegi ñu koy sétane mën na jur lu nekk. dëgg li mën na jur lu ne mën na jur ay accident mën na jur lu ne nak fi bo fi sax worul waaw amul panneau de signalisation amul dara ak ni té dafa lëndëm waaw benn heure bi sax nit nit duñ fi ñëmé jaar. te xam nga lii mën na jékki-jékki màbb xam nga doo comprendre lu ne mën na cee xew quoi lu ne mën na ci xew. kenn defaru ko waaw yàgg na fi lool. te guddi gi sax wóorul maanaam affaire yi booy fii nii jaare yëpp quoi wóorul quoi. oto charrette ba si sax ambulance bëri nañu fi romb ci kaw canal bi muy nag ay risques yu rëy ci kanamu chauffeur bi. li mu mën a jur bari na nun ñi nga xamante ne dañu yor auto transport tous les jours nu ngi ci tali bi. li ñu fiy jànkonteel dafa metti oto bi benn kayit rek boo ko manqué tey nga dee te bu amee pax mën nga ko annoncé fii ba trois mois ba quatre mois wala ba heure bii déwén te duñ la ci faale. Samba mi nag file la dëkk daanaka ba muy nekk tout tànk ba léegi tey ji nag melokaanu kanaal bi jooytu na ko ba sonn waaye lu muy gën a ragal mooy nawet bii di jub si. nga xam ni day gën a xajamal pont bi. lii moom dafa yàgg quoi mais wóorul quoi ak période bi ñu toll nii sax ak nawet bi ñuy waajal nii bàyyi lii dafa ëpp fii nii ak mbalit yi fiy dugg rek mooy tax géej gi tamit du normal. mom nak xamal nañu ni fii bu dul waa koñ bi kenn du ko defar ndaxte yi daanaka lu si ëpp si nawet bi la profito defar kanali yi ngir gën ko yeesal. waaw lii moom dafa ëpp fii lii du yoon mais dañuy xaar mu taw fii. fattu kondiir bi génn ñu soog ko defar gars yi dañuy dëpp affaire yi quoi ñoom avant nawet la ñu war a joob yi mais dañuy bàyyi ba si biir nawet bi ñu bugg ko joob. moom nag lépp sipp na ko meeru yaraax bi ndaxte jàpp na ni deful wareefam ci zone bi. instant nii ñoom lu leen neex rek la ñuy def ah. li leen neex ak li ñuy fattee place bi nii mu gën a fattu ay usine glace ak ay lu nekk mais géej gi pour mu set rek problème la. mairie bi lii nii dafa ñaaw ku fi sangu doo ko fi gis sax fii da doon fees dell instant yi mairie bi moom mooy loolu ñoom seen bopp lañ fi nekkal moom mairie Yaraax moom mooy loolu ñun gisuñu si suñu bopp quoi si mairie bi nii tur bi rek a fi nekk tur bi rek a fi ne tey ji nag nakar képp la am ci ñi leen nga xam ne ñoo yor commune bi ndaxte yi jàpp na ni da leen a seetaan non man kay yow mii laay waxal rek yow mii laay waxal ah ooy ñi si ñeneen ñi moom non ñooñu aw ma lu may wax ak ñoom am na loo xam ne tamit dafa ni fàng kenn du ko wone loolu la demee ñun ñëpp koy gisandoo yow dëkkoo fii te yaa ngi gis lii ñi fi dëkk sàkkantuma ak ñi fi dëkk nag di fi romb chaque jour noonu la demee man autorité yi moom aw ma ñoom moom lu may wax ak ñoom quoi ñoom ñoom seen bopp lañ fi nekkal rek waaw yàgg na. ñi léegi nga xam ni ñoo faral di romb ak rombaat tey teg bët ci lile ñu ngi ñaan nguur gu bees gi. ñi dox ci ay jéego bala mu fi jur ay jéeya ah nañ nu ci dimbali rek ndax mën na far ay bakkan waxuma benn bakkan de ndax oto bi ma wàccee quatre personnes ñoo ci nekkoon ak man mi dawal oto bi muy cinq léegi bu ñu suruxee ci canal bi loolu ñaata personne la du kat te keneen kiy topp ci suñu ginnaaw bu fekkee ne day daw lu bari bu boobaa bu ñu suruxee ci canal bi dañuy fekk si encore te bu boobaa beneen affaire lay doon nañ ni ci dimbali ngir yàlla ba teli li fi yaqku dafa bari nañ ci def effort te nawet baa ngi jubal encore li bu ndox traverser ci bir oto bu jaar ci canal bi di nga wacc ci bir man ma la wax lolu autorité yi mom buñu gisé li war nañ ci mëna xam nga xar tanko tuba yi ndax ñi fi nekk amana xam nga buñ toogee yagul mais bëgg nañ liggéey quoi. waaw te li ngeen di def ni baxna pour signaler len ko pour ñu mëna xam nga yi buñ ko gisé dinañ ci xar tanko tuba yi parce que worul worul li dafa yaga boo gisee sax ni mu mel nii sax xam ne xam lii lu yàgg la fi quoi te gars yi war nañ ci xam nga teel ko gis pour defar ko. ñaan nguur gu bees nga xam ne ñoo fi toog ñun jeunes yi ñoo leen far dañuy ñaan yi defaral nu li parce que vraiment ñun ñoo fal jomaay parce que gis nañ na ñoom jàmbaare te ay bëgg xool nañ xam ne ay liggéeykat ak ñoom Sonko suñu sañoon nañu defar nu affaire yarax bi quoi parce que problème bi moo di lii wóoru quoi xale yooyu quoi suñu sañoon nag ñu leen di ñaan ñi dimbalu defaral nu ko quoi.